bonjour sama gars yi bienvenue sur ma chaîne YouTube Net Bi TV di am mbégte ak kontaante bu baax seetaan bi ngeen di seetaan ak suivre gi ngeen di suivre te di leen ñaan yi ñi xam ne ngeen ak gan seen bi te abonné goo leen si ñu ngi leen ñaan ngeen abonné te bu leen fàttee bés kolos de notification bi di dikkee yéen defeen waxtaan rek série bi la polygame si ki moo di bàjjan bàjjan nag boo xoolee xaalisam bu réer si tànk ñàkk ko si la nekk moom bàjjen parce que boo xoolee bàjjen xamul fu muy taxaw ndaxte boo xoolee bala njëkk jiin xaalis bi ne moo ko sàcc ba noppi ñëwaat di ko jiin awa naan awa moo sàcc xaalisam loolu nag asu meesu trop ba tax asu du défendre ki ànd moo di awa di doomam waaye nag boo xoolee bàjjan mi ngi confirmer asu naan ko awa mu sàcc sama xaalis parce que awa salaire bu yem la yor yor te chaque jour day ñëw di indi ay 200000 ay 300000 xaalis boobu nag awa di indi si kër gi ba tax bàjjan di ko bàyyi xel ndax gis na xaalis bi ba tax mu bëgg awa xaalisam bu réer moom bàjjan waaye am na ku ko défendre parce que boo xoolee yaay mi asu mu ngi si ginnaawam di ko défendre naan awa jëlul xaalis bi te boo xoolee asu mu ngi alerté ki nga xam ne moo di bàjjan naan ko bàyyi sama doom ji nga ni sàcc te naan ko dootuma nangu kenn di jéem a torturer sama doom kon mu mel ne bàjjan xaalisam bu réer si tànk ñàkk go si la nekk parce que moom xamul exactement ku jël xaalisam gars yi di yemandee une fiche vidéo bi rek te di am mbégte ak kontaan bu baax seetaan bi ngeen doon seetaan ak siiwur gi ngeen doon siiwur di leen ñaan yi nga xam ne ngeen gan seen taabane goo leen ñu ngi leen ñaan ngeen abonné te bu leen fàttee bés kolos de notification bi jaa ngeen